ñaareel la maanaam boo xam ne day dem faral dem a dikk yéenekaay ba nga xam ne ma nga baaxoo daw ah, ci diggante Ndakaaru fii ci Sicap Mbao ah, dama ah, ba mu demee ba toll ko boo di Kédougou foofu la daanu nag ba nga xam ne lu jëm ci ndigal li nga xam ne njiitum réewum Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye joxe na ko sant ko ilmaane jëwriñ di Ousmane Sonko mu di ñu dàmp njabootuk ñi nga xam ni ñoo ñàkk seen bakkan ci feeñ di manifestation yi fi amoon yéen a kaay mag ñu xamal ni njabootug ñu ñàkk seen bakkan gis-gis bi bari na te wuute ñii ne waaw lu baax la ñii itam ni njëkk nañu jiital yoon yoon def ci liggéey dem ci ba jeex ba tey yéen a kaay bi dikk dañu xamal ni Amadou Amadou bokk ci ñi nga xam ni njabootug ñu ñàkk seen bakkan moom ay kàddu mi ngi ci biir yéen bi la mu xam le moo di sama rakk ju góor bokk na ci ñi nga xam ni ñoo faatu ci feeñ di manifestation ba tey bokk na ci que nañu jiital yoon ngir mën xam ana moo faat euh, rakkam ju góor jooju la ba tey euh, lu si ay kàddu mi bi nga xam ni njiitum réewum Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye jël na ko mu di dàmp njaboot ak ñi nga xam ni ñoo loru ci feeñ yooyu fi amoon ba tey la moo xam le moo di waaye nag dana gën ngir ñu jiital yoon def ca liggéey dem ca ba jeex ngir ñu mën a xam juróom benn fukki doomi aadama yi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan ana ca dëgg-dëgg ñan ñoo leen faat ba tey maître Amadou Ali Kane ay kàddu mi ngi ci biir yéenekaay bi wax ci lu jëm ci dàmp yi ba tey bokk na ne moo di ñaari tànneef jamono ji ma ca kanam ne ñoo euh, boo xam dana dàq ba ba woon di Macky bi ñu daal di koy teg ca suuf daal di euh, jël génn dogal boo xam ne mooy dàq boobu la dogal waaye nag loolee bu ko njiitum réew mi defee dana ko indil ay jafe-jafe jafe-jafe koy indil moo di la am ngir mandat bi njëkk de ayam bi njëkk ngir mu yor ci réewum Sénégal waaye nag bu fekkente ne bëgg naa lijjanti mbooleem la fa xewoon ci feeñ fi amoon doore ko ci weeru 2000 atum 2021 ba 2024 juróomi at yëpp ci loolu kott la koy jëmale na ko itam ci lim ñu nekk jamono ji mu di fësal mbooleem loo xam si ni moo ñeel yoreenu réewum Sénégal ak lépp loo xam si ne amoon na fi ci ay réexoo rapport rapport fa amoon yëpp ñu di koy ay jafe-jafe ngi ci biir yéen kaay bi ba tey jëm ci mbirum damp gi nga xam si ni bëgg nañ ko amal jëmale ko ci njabootuk ñu ñàkk seen bakkan ci feeñ fi amoon di manifestation moom Aliou la mu xam moo di ndaw ñi nga xam ne ñoo xeex ba réewum Sénégal juraat ci démocratie am nag jot na ñu leen di

naka la tamit xabaar yoo xam ne jot nañ ko ba tey yéenekaay bi di ñoo xamal lu toll ci ñeent fukk ak ñeent ñoo xam ne ñëw nañ fësal seen tolluwaayu moomeel yéenekaay bi moo ñu ko xamal ba tey yéenekaay bi dikk di ñoo xamal ni les écoles lam ñoo ba woon di Macky Sall jamono ji nekkul ci réewum Sénégal nekkul Ndakaaru waaye tamit soriwul nga xam si ni ñoo di ay jege ñaareem yéenekaay moo ñu ko xamal moo di day faral di dégganteek moom dégganteek ñoom lu bare bari moom njiitum Sénégal ba woon di Macky Sall waxtaan ak ñoom ci ay jollosu téléphone portable ba tey bokk na ci la moo xam ne moo di ndaje bi réunion bi nga xam ne mbir yu baree bari te doy waar nag ma nga ca boobu rapport ba tey yu baree bari war na caa fës jébbal nañ ko ki xam si ni moo di toppekat bi di procureur ngir mu fës yéena caa wëyal liggéeyam ba tey yéenekaay bi dikk ñu xamal ne loolee bokk na ci mbirum Prodac ak nañu ko doxalee yu baree bari yoo xam ne jaaru ci aw yoon bokk ba tey penc pencum ndawi réew mi di assemblée nationale ak daamar yi di oto yi nañ ko doon joxee lépp itam yéenekaay bi dikk na ci ay doomi aadama ñoo xam ne jóge nañ fa nu nekkoon doon fa liggéey waaye

of nag jibal na ko yéen kaab ñu xam ne bokk na ci la ca gën a fës moo mbirum mbas mi nga xam ne moo fa jaaroon di covid 19 ak la jaaroon lépp ci wàllum koppar ñu bare bare jàpp a ni njiitum ci bopp ay moodu moodu wala ay faatu faatu dafa mel ne jamono ji seen xel dal na ngir ñu mën a dellusiwaat ci réewum Sénégal yéenekaay bi di le témoin quotidien moo ñu ko xamal ndax ñoom la jàppoon moo jamono bi nga xam si ne Macky Sall mi ngi fi suñu duggoon ci réewum Sénégal suñu ñëwee ci réew mi dañ leen jàpp teg leen loxo ndax nañu nekkee woon foofu la ca réew ak yenn tabaski bii ñu dëgmal bëgg nañ ko defee fii ci réewum Sénégal le témoin quotidien moo ñu ko xamal ba tey baneen yéen ak la moo xam ne ni ki tey ji mu di source yéen kaay bi dikk di ñu gërëm faram fàcceel accident bu metti ba am foofu la ci am ki nga ja nekk ca raglu du hôpital ba nekk ca Kaffrine euh, indi ña ay kaddu ci mbir mi na mu demee bokk na ci la ma xam ne moo di fukk ak ñeent ñoo ci ñàkk seen bakkan ba tey leneen la ma xam ne moo di fukk ñoo ci am ay gaañu gaañu yu métti juróom euh, ñeent fukk ak ñeent yoo xam ne seeni i gaañu gaañu dafa xaw a woyof naka noonu itam li ñu yéene kaay bi xamal moo di euh, juróom benn fukk ak juróom ñett ñoo ca loru mu nekk mbir moo xam ne doy na waar naka noonu itam ñi nga xam ni ñoo ca gaañu euh, dañoo manqué li nga xam si euh, ni moo waaye nag ay saa Guinée di ay Guinéen ña woon cee boobu bi di oto yéenekaay bi moo ñu ko xamal ba tey yéenekaay bi dikk di ñu xamal ni lépp nag bokk na ci li ko waral moo di pneu oto ba toj lan moo ko sabab lépp yéenekaay bi mu ngi ci biir di ko gën a faram-fàcce soxna Thiala lii bokk na ci di gën a fës ci yéenekaay ni ki ji